salaamaaleykum NPP national executive xam naa ne euh, gars yi dinañ waaru di dinañ wax ne lu xew Sidi Ndiaye for the first time muy euh, génne audio euh, dama dégg ñu pare ñu fa jaar including spécial du audio bi di laajte ak yeneen ak yeneen comme lu standard newspaper génne nda Euh, press release bu ma génnee kan moom ma ko santa pour wax du saana rek moom sax xam na euh, ñëpp xam na ñu xam nañ ne loolu du press release euh, news item la in fact man maa génne audio pour di tontu te ku déglu standard newspaper bi dinañ la wax ne si di dafa tontu li nga xam ne loolu la parti leader bu PPP wa jamale ko suñ parti bi ak jamale ko suñ parti leader bi ñëpp dégg nañ audio yu kebaa Jallow bi uh, it is not surprise and it will be a big disappointment. So there are some people they insinuate or oh, Bugarek create confusion melni hamuñ du xew loolu yàgg naa ko génne uh, and then uh, depuis last week waaye this Monday lañ ko man personally maa ko yónni uh, maa ko jox dat media pour gars yi publish ko te ma bañ ko yónni kenn fa media bi ne because bëgguma woon pour ñu lifin waaye because of hypocrisy bi ak na waa naafexa yi ñu ngi wax di wax some other yu di eh, NP eh, NR PPP eh, people pour ñu ridicule ma di wax wax yoo xam ne mënu ma understand ñun di national executive xam nañ lu xew gis nga doomu aadama so demee ba nekk position of trust da nga war a keep maintain that trust don't breach that trust so gisee nga nekk a eh, national executive member of a party is a privilege boo xam ne da ko war a sàmm nga nekk a position of authority in government privilege la boo xam ne da ko war a sàmm it's not an entitlement you don't own that position is the is is, is eh, you belongs to all Gambians and then the leadership of the country or any country jox la opportunity bi pour nga serve so you must maintain that. Eh, lu xew mooy ñun some of these executive NPP ñu ngi call ñu ngi callante di wax dugg na fii génn na fii xar yi fii lañ ko takkoon fii lañ ko firee yëpp naa fexa kese wax xam ne andu amul dega dégg ah, man dama jël responsibility ñun yëpp xam nañ lan lañ d'accord lan lañ wax and then what is the position of some of us in the national executive majority of us their position and my position dafa differ waaye di same national executive members tamit ñoo xam ne ñooy dem round even whereas man foo xam ne our party leader su waxee dara same national executive members ñuy daw di wax ne bu leen nangu loolu te si same national executive members telling people to ridicule me so man loolu duma duma duma naxari I want to say that man Ah, kenn ñun ñu fi nekk yëpp amul kenn ku ma njëkkee indi National People's Party NPP ñii UDP lañ nekkoon ñii ñu daaxaleen ñu ñu uh, resign daw génn ñii APRC lañ nekkoon uh, ñii ñu daaxaleen ñu seen kër bi bu mu tasee ñu di pour resign man si ñooñu laa bokk si ñi nga xam ne ñoo bàyyi parti bi ñëw balaa NPP di sosu den ñun ñëpp ñu sosandoor NPP together amul kenn ku ma ku ma ne foo ko yow foo ne ko e, tey ñuy wax ne di same national executive members yeneen di di wax ne ah, soo demee man su ma toogee ba dégg ñeneen. ñu xam ne di wax yenn way xam ne I lu ma xam xam yéen li ngeen xam ak lu parti leader xam doy na but people are using it's the same national executive members ñoo use UDP people honorable di leen xool dina wax ne wax leen ne Sidi Ndiaye lii la bëgg a Adam ko président Adam Barrow lii a def a uh, seat of discord uh, between us and the president also the president and the people it's ill intended waaye man yooyu yóbbuwul ma fenn the same people di question ne uh, ñii dañoo pour ñuy lale kan moo ñëw pour tas NPP ki nga xam ne kooku wan deka moom fu mu deka keram biir keram su dee ten votes moo fa nekk NPP mënut fa am ñetti votes dekaam su dee hundred votes moo nekk si biir deka bi NPP mënut fa am seventy votes constituency am NPP mënut fa win ñun buñ sosoo eh, eh, eh, NPP ba léegi balaa NPP ñun man ki nga xam ne ñu ne ñun euh, bëgguñ président oh we are playing games man su ma dekka su dee ten vote moo fa nekk ten euh, su ma kër ten vote ñoo fa nekk ten vote yëpp Adama Barrow NPP ñoo ko moom su ma dëkka NPP Adama Barrow ñoo fa win su ma district NPP Adama Barrow ñoo fa win su ma region NPP Adama Barrow moo fa ñoo fa win kon ana ñu ñan ñooy ñan ñoo gën a am solo si NPP because party politique is all about numbers ñun demba naam nguur bu fi nekkoon APRC man suma ker suma dëkka suma constituent suma région APRC ñoo fa doon win léegi man ma bàyyi APRC ma ñëw NPP tey suma ker suma dëkka suma constituency suma région NPP ñoo fay win ñoom ñu wax ne ñoom euh, ñoom ñoo gën a important ñoom ñoo am nit ñi pour NPP ñoom démba seen seen seen ker ak seen dëkk ak seen constituency bi ak seen région foofu UDP moo fa daan wiin nguur gi nguur bu fi nekkoon léegi ñoom ñu bàyyee ko UDP ñëw NPP ba léegi ñi nga xam ne ñoo daan sànnil NPP seen kër yi ak seen dëkk ak seen région yi ba léegi UDP ñoo fay win ñoom ñëw nañ NPP e e, e, de waaye ñooy de cannot win de ñun ñëw nañ APRC now the opposition cannot win de is the ñëw na NPP is the NPP ñoo fay win kon ñun man loolu mooma a itel te xam naa ne insha allahu rabbi in the 2023 local government election suma kër suma dëkk suma constituency suma region NPP dana fa win bu soobee yàlla te ñooñu ñi nga xam ne ñoo may ridicule di mappit against the Gambian people in this national executive forum xam naa ne local government election buy ñëw nii seen kër yi seen dëkk ak seen constituency NPP du fa gañu ñoom they knows about it kon man I am proud what I am doing et du di leen fàttali rek ak ñuy ñu fa jaar ak yooyu noonu yëpp man lu ma lu ma óor mooy ne man du ma fenal njiit du ma tappale njiit du ma or njiit wax naa ko waxaat ko Yaya Jammeh the same thing His Excellency President Adama Barrow the same thing man soo leen déggoon lu ma wax ni kon tey wax bi du fu aaga waaye man dema sama suma position of trust pour gis ne li nga xam ne loolu moo xew loolu an mu ñu taxaw si te man kenn du pit me and against the president the people te ñun man ngeen a wax nii man I am taking bullets we are taking bullets for the president and for the NPP some of you ñuy wax ne yéen you are that and that you are not taking bullet for the NPP and for the president you have never in fact UDP will never and ever criticize or you will never and ever respond to UDP loo xam ne dañ ko charge against uh, the party du wax la tamit ne an ñeneen ñuy déglu as a deputy spokesperson as a spokesperson my role I in fact there so many people ñoo xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi génne uh, responsibilities responses delivering they should not is a responsibility soo leen ma déglu woon man man maa wax ne bu ñu doon wax about this local government negotiation the entire national executive suma bopp and only few others only few others ñoo the new proponent of new engage all our partner parties including the PPP NCP and GPDB. yéen a the bunch. and as this as recent as this local government election man man, wax ne let's engage all the parties and in fact I am I uh, dama mention PPP ma mention NCP ma mention GPDB. Lamin Cham is the first person pour ridicule me to say no ñooñu dañ dee amuñ nit yow Dou Sané you were there and others you supported him and what we agreed on whatever we agreed on man duma dem feneen di wax ne yen that is your position te billahi illazi la ilaha illa huwa that is your position yéen a wax you people will continue to say that at national executive andara man suñ déglu woon lu ma wax duñ doon àgga fi but it's the same people di dem di wax ne Sidi Ndiaye moo bañ PPP NCP GPDP and billahi illazi la ilaha I am the proponent but I am too civilized pour my gain. Did them do a man that is not important I am part of an organized association or organizations ma accept policies and programs and rules and regulations of that organization so su ma ñëwee any decision of the majority. It's not about the minority. I cannot go out and I will never go out. do. That is incompetency. That is hypocrisy. That is insubordination. I will never do that. I will never do that. Teman, soalan mat degluan sinjel ben, lamen cham and others and those and other people soalan until chilumawa, you engage PPP, NC, NCP, GPDP and others, but you people refuse and you people believe let's engage only NRP and APRC and man agree. I have no problem about what you say. It's my responsibility to say my opinion. But at the end of the day, yalla hamna yen hamgen luma wa. Nyare luma wa bindalenko. It should be cast in stone. lu yaga yaga then you want to sit in there and i'll continue to say that i don't owe obligation to anyone criticism be man as long as i am uh, so my concern is very clear and i am committed to the leadership of the party and the country and our party man lolu doyna ma ñu ma pit ak ñu bari i saw lamin jata himself to dege lamin jata di binda later di ma report to the national president billahi illazi laa ilaha illa wa lu mu fa wax yëpp fen la pen dégg nekku si Lamine Diatta in that letter di Lamine Diatta he kano read he cannot write nit ñaa ko pousse mu def ñoo ko bindal loolu only with the ill intention of destroying me but they can't destroy me mu ne dama ko jox kayit agreement ak APRC pour mu sign is the lie of the 21st century No ñëpp a ngi fa Seeku Mbaalo mu fa and others ñoom ñoo doon négocier ño even exchange billahi allazi la ilaha illa not a single sentence written talk less of a document to say aside those are lies but xam nga when you fen fen you, rëy yooyu with time uh, it, it, the truth shall always triumph man amul kenn ku ma gën a devoted and committed to the party leader to the party and government I will stand the test of time I will never betray the leadership I will never lie to him and I will never order him du du ma ko du ma tappale salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi jégalu mag yaa